mbokk yi ak xarit yi eh, dañuy ñëw déglu ki nga xam ni moom lañu ñuy wax Serigne Abdou Bara Dolly c'est que réew mi li doy waar ci jamono ji maanaam kuy wax foo jaar Sonko dugg ci directement ou indirectement maanaam lépp dafa tënku ci usmaan Sonko dafa mel ni réew mi dafa mel ni day dox tey ci Sonko loolu nag nekk na loo xamante ni lu doy waar la parce que dafa mel ni keneen existé wut keneen ku am ak rapport ak moom yaay dox moo xam nga contre ko moo xam nga ànd ak moom moo xam et cetera maanaam dafa mel ni moom mooy centrale bi nga xam ni fil yëpp ci lañ branché wu. léegi nag ci biir fiil yi nag am na ñoo xam ne dañu kii nekk fiil pour taal làmp ngir leeral am na ñoo xam ne dañu nekk fiil ngir nekk leneen ak leneen donc mais en tout cas dafa mel ni moom mooy centrale bi ba ku jóg rek ci ngay branché wu donc ñu déglu ki nga xam ni mooy Serigne Abdou Bara Dolly kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati je vous en prie. boo fa jógee cool topp la. Ah, ma ne ko ma ne ko ñaar yëpp. Hmm. boo àggee fenn fii da nga koy moytu. parce que boo xeexee ba àgg benn dayo bi da ngay ralentir jëm jëli la nga soxla waaye boo ko nee xeex doo ko jot te am na yenn kàddu yoo xam ne boo ko dee wax nit ki bu ma jëlee jaasi ji dama lay rey bala nga ko rey day lay rey par rey boppam nguur doo ko wut di wax ki yoru nguur gi bu ma la jàppee dama lay tëj si kaso bi boo ma ñàkki nguur dama lay tëj tëj sa njaboot tëj sa nangam nangam mais kooku bu fekkee xam na expérience politique. xam li dal Ablaye Wade xam ni nguur boo ko xasee ba lu ne mën nga ko see def mais bal balaa ñàkk nguur gi day dee benn yoon parce que dégg naa si kaddu Macky Sall mu ni benn yoon la ni di dee du dee ñaari yoon. Hmm. mais xam na ni maanaam bu ñàkkee nguur gi dee bu toogee si nguur gi dee mais da toog si nguur gi dee. dee yow yow loolu da nga ko ciy da nga ko ciy da ko ciy défendre. mais dama ni man de bu fekkoon ne man la laa wax loo war a rafetlu man laa wax. man Cheikh Abdou Bara Dolly bu fekkoon ne gis nekk yor naa nguur. Hmm. sama adversaire ni ma yow boo ñàkkee nguur gi dama lay tëj si kaso bi bala nga maa tëj si kaso ma tëj si kaso bi. Hmm? loolu laa gëm. tey nit dana ma fekk ma yor sama jaas yi yor ko di dox samay soxla. mu ñëw di xeex man naa ma dama bëgg a nangu si jaas ji ray la bala nga maa rey dama lay rey rey sama bopp. loolu moo am actuellement. man xaw ma lu am mais man loolu laa gëm. moo tax yenn communication yi baaxul. macha allah. yenn communication yi baaxul et pourtant moom mi ngi communiquer communication boo xam ni baaxul mais yëgut ni bosam moom baaxul moo tax wolof te bu xel doon jaay lamb parce que ku ne sa bopp doy na la mooy li nga xamante ni bi moom la def nii nee na yenn communication yi baaxul te communication bi nga xamante ni moom la fi communiquer léegi man jàpp naa ni bopp bosu boppam la parce que man mosuma dégg fu Ousmane Sonko yëkkatee kàddu wax ni su ma faloo damay rey Macky Sall musuma koo dégg mu wax ni fu ma faloo damay tëj Macky Sall parce que jàpp naa ni loolu bu ko waxoon sax nit ñi xam ni li ñuy bañ loolu la nekk parce que kenn waxut ni da nga war a falu ñëw jàpp nit ñi di leen tëj tëj président warut a tëj yoon moo war a tëj loolu mooy problème mu réew mi dañuy fàtte ni yoon moo war a tëj nit ki lan lay def. ba yoon di ko tëj nag moom moo jëf li nga xam ni moo tax yoon di am ak moom ay jafe-jafe léegi nag musuma dégg tamit fu président bu Macky Sall waxee ne bakkan benn la dee benn la maanaam loolu aussi tamit wax la joo xam ni moom mii moo ko ko kéréel parce que man dégguma foo xam ni président Macky Sall yëkkati na ay kàddu wax ni eh, dee benn la kii benn la je pense que ni bon yegguñu ci étape boobu discours bi ma mujjee dégg Ousmane Sonko wax ko. dafa wax ne ko ñi lay wax naan la buñ defee lii nii mooy xew lii mooy xew yooyu boo yeboo nga teg ko ci suuf parce que du ma jël justice mukk di ko toppee nit loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom la Ousmane ko wax donc je pense que ni nit ki boo koy waxal waxal ko li nga xamante ni bii mooy li mu wax waaw waaye di ko waxal di créer c'est parce que yow fi mu toll nii am na beneen doxalin boo xamante ni moom ngay doxale ba tax ngay kereel nit ki loolu vraiment dafa nekk loo xamante ni bi rafetul mais leneen li nga xamante ni bi moo ci ne ginnaaw bërki démboo njaay sëriñ bi moo fi wax ay waxam wëlbatiku ñu waxaat ko ne ko yaa fi wax li mu weddi ko de waxut loolu di créer yeneeni wax ne loolu la waxoon ku mën loolu nag mën nga lu ne ginnaaw yow say waxi bopp sax dem nga ba nga xamante ni buñ la ko fàttalee nga ne waxuma loolu loolu musuma koo wax te mu leer la ne li ngay wax ne mosoo ko wax mi ngi ci internet bi nit ñi buñ ko tegaatee gis ko kon donc war ngaa seetaa sa bopp donc politique du lu lu baax la politique ngir defar penc mi la je pense que ni politiciens yi nag dañuy wax naan dañu ko salteel a salteel a salteel ba ñi nga xam ne bii sax ay nit lañ yu jëpp nit ñu baax dañ naan duma dugg ci politique ndax ay saagaak wax yu ñaaw yi nga xam ne ñoo ci ne mais nit ku ne na nga mel rek noonu nga cay duggee je pense que ni nit ñi ci seen jëmmi bopp war nañu gën a continuer ñi baax dugg ci politique bi bu baax a baax te xam ni buñ dee dañ ne dañ koy bàyyi bàyyee ko ñi nga xamante ni bii seeni mbir tey ñu wax lii suba ñu wax lale bu boobaa réew mi du jóg ci lii nga xam ni moom la nekk kenn du fi wax li nga xamante ni bii kat tey di nga sa wax dana mën a aj ngooñ te loolu nekkut loo xamante ni bii lu baax la je pense que ni booy waxal nit. waxal ko li nga xam ni moom la wax waaw mais bu ma jëlee nguur gi damay def lii damay jàpp kii damay kii lii loolu moom wax dëgg fa yàlla ah man de déggaguma ko bu dee dégg na ko nag moom bu dee mën na ma ko partager bu partager ma ko ma dégg ko bu ma ko déggee it gis ni nii la demee dinaa ko teg fii daal ne ah li mu waxoon kat lii la bu fekkee ne yor na vidéo bi nga xam ni waxam ji ju koy wéral maa ngi koy wax mu envoyé ma ko bu ajjuma ak jàmm ma tegaat ko daal di xam ni juum naa ma nangu ko ci kanamu sénégalais yëpp ñu gis ni kat waxam ji wax ju wér la waaw am na sama numéro donc maa ngi koy lancé mbir moomu comme que moom dégg na wax jooju te man dégguma ko na ma envoyé li nga xam ni mooy wax ji bu ko envoyé rek bu ajjuma incha allah danaa ko teg daal ah man de juum naa euh, wala boog dégguma ko woon waaye wax ji ndekete lu wér la président Macky Sall kat fii la ko Ousmane Sonko waxee ne ko. bu ma jëlee kii bi dama lay def nii dama lay def naa looloo waral lii nañ moytu di waxalante loo xamante ni bi teguñu ko fenn lu sunu bànneexu bakkan wa ilaa teguñu ko fenn lu dut lu neex nit képp lañ ciy wut loolu nekk na loo xam ni rafetul